defal ko mu jaar ci yoon bi nga xam ne mooy yoonu yoonu njub kiy dénkaane kan mooy dénkaane dénkaane bi mooy almuusi waxoon nañ ci anaasir yi faaw mu am kuy dénkaane ki dénkaane xam nañ ko Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu taala anhu la ki ñuy dénk kan la day mel ne bu dee dénkaane bi turu ki ñuy dénk rotu ci turu ki ñuy dénk rotu ci waaye ma def naa jàpp ne ab murid la ci murid yi àndoon ak sëriñ ndax loolu mooy leer ci njëlbeenu dénkaane bi danañ ci ñëw ci kanam lan moo tax sëriñ bi bind ko sabab bi dëgg-dëgg lan la sabab bi maneef na ko jëlee ci njëlbeenu dénkaane bi ndax sëriñ bi ci njëlbeen gi junj na ci luy wane na nangam mooy sababu dénkaane bi day mel ne ki ñuy dénk moom moo sàkku ci sëriñ bi mu dénk ko dénkaane bii loolu mu ngi ko wax ci tàmbalimaay bi i'lam ayyuhal muridu anni amuruka bi sitati asyaa wa anhaaka bi sittata wa anhaaka bi sitati asyaa kama yow taalibe bi yow murid bi xamal ne maa ngi lay dénk juróom benn mbir di la tere juróom benn mbir comme ni nga xamee ne noonu nga ko sàkkoo ci man kon moom moo ko moo ko sàkk su ko defee dénkaane bi mi ngi séddalikoo ci ab iftitaax ya muy tijji ginnaaw bi mu indi muy développement yaatal mu daal di koy tëjee nag ab xaatima muy conclusion kon daal ci tënk mën nañu wax ne dénkaane bi loolu la loolu la làmboo ak éléments yi nga xam ne moo ci waroon a aju su ko defee nag dañuy daal di dugg ci dénkaane bi sëriñ bi mi ngi ko tijjee turu yàlla muy bismillahi rahmaani looloot lu sëriñ bi fonkoon la ci mépp mbir moo xam ne daan na ko def wala mu koy def lu comme ni ko sëriñ Basiiru nettalee ci minanul baaxil xaadim loolu nag lan lay wane mooy fonk gi mu fonk wax ji yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ne mépp mbir mu ñuy tàmbali te mu am solo te tàmbalewuñ ko bismillaahi rahmaani rahim mbir mooma mbir muy ñàkk barke lay doon ginnaaw bi mu daal di julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam daal di wax ne hada jawaabun saafin min qaa'ilihi ila saail wa ila jamii amthalihi mimman yatlubuuna allaha tabaraka wa taala lii de ab tontu la boo xam ne saafin mooy buy buy wéral mooy bu mat sëkk rek bàyyi ko ci ku ko wax jëm ci aji laaj ak mbooleem ñaa xam ne dañoo maasoo ak moom ñi nga xam ne nag dañuy sàkku yàlla borom bi subhaanahu wa taala foofu nag tom bu am solo mën na fee leeral day mel ne kon ñi àndoon ak sëriñ bi ñoom ñëpp yàlla képp lañ doon lañ doon sàkk yàlla moo leen boole woon ak sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu waaye du caagi ne àdduna wala alal wala leneen moo leen boole woon ak sëriñ bi ndax day feeñ ci euh, dénkaane bii nga xam ne moom la sëriñ bi dénk kenn ci ay taalibeem ginnaaw bi nag mu daal dugg nag ci biir dénkaane bi tàmbalee ko benn teggin woo xam ne li muy wane mooy ndigal i'lam ayyuhal muridu anni amuruka bi sittati asya wa anhaaka bi sittati asia kama xamal yow murid bi yow taalibe bi nga xam ne baatu murid la jëfandikoo murid xëy na du caagi ne sëriñ bi moom moo ko njëkk a jëfandikoo déedéet waaye baat la boo xam ne buñ delloo ci téere yi sufiyanke yi dañuy fekk ñu koy jëfandikoo lu baree bari soo demee ci risalatul xusayriya bu abdul karim al xusayri da nga fekk mu koy jëfandikoo soo delloo ci alxuniya bu si abdul xaadir jilaani da nga fekk mu koy jëfandikoo ak yeneen téere tasawuf yu siiw yu baree bëri waaye murit nag muy taalibe nga xam ne ñun noonu lañ koy firee ci wolof day mel ne sëriñ bi am na nu mu ko xamlee dëgg-dëgg ci biir masaalikul jinaan wax na ne idil muridu laa yuridu abada gayra rida rahmaani xaysu qasada murid du kenn ku dul koo xam ne ngërëmal yàlla képp moom lay rëbb di ko daak waxtu wu ne daane moom ngërëmal yàlla moom lépp lu muy def moo tax mu koy def lépp lu muy wax moo tax mu koy wax kon day mel ne murit mooy koo xam ne day sàkku yàlla borom bi subhaanahu wa taala wala sax mën ngaa wax ne mooy ki sóobu ci yoon tasawuf nga ne day mel ne benn martaba la ci maraati bi nga xam ne ñiy jaar ci yoon tasawuf danañ ci jaar ba jàll bala ñu àgg ci yenn yu gën a kawe yi mu ne ko yow murit bi xamal ne mankat maa ngi lay diggal juróom benn mbir yoo xam ne da ko war a jëfe maa ngi lay tere juróom benn mbir comme ni nga xamee ne noonu nga ko sàkkoo ci man kon day mel ne dénkaane la waaye ci biir dénkaane bi tamit day mel ne sëriñ bi day tontuwaale ay laaj yuñ ko laajoon day mel ne kon dañ ciy déggee ne morit bii nii moom moo laajoon sëriñ bi mu dénk ko juróom benn mbir waaye tere ko juróom benn mbir loolu mooy feeñ ci waxiin wi daldi di koy tàmbalee nag détaillé mooy yim koy dénk mu lim ko wax ñàkk gee jëfe lor yi nga xam ne moo ci mën a juddoo ginnaaw bi nag mu ñëw ci yi nga xam ne moom la koy moom la koy tere mu ne ko fa sittatu allati amruka biha hiya al iman juróom benn mbir yi nga xam ne moom laa lay dénk ba ci njëkk mooy al mooy gëm yàlla borom bi subhanahu wa taala al iman muy gëm euh, baatub imaan suñ ko waxee mooy tasdiq mooy dëggal baat bi loolu lay firi ci luxa waaye buñ ko waxee ci sariya mooy loo xam ne nit ki daf koy fas ci ab xolam di ko wax ci làmmiñam di ko jëfe ci ay cëram loolu mooy mooy gëm gëm nag doon loo xam ne mooy tax nit ki mën a dugg ci diine lislaam da day wax lislaam caabi ji nga xam ne moo koy tijji mooy laa ilaha illallah nit ki bu ko xasee wax rek des koy jàppee ab muumin mooy ku gëm yàlla borom bi subhanahu wa taala donte ne al iman ak al islam ñaari baat la yoo xam ne léeg-léeg ñu leen di ñu leen di boole waaye boo xam dañ cee wax wax ju am solo dañuy wax ne kalimataani tamaa iftaraxaa way saftaraxaa ijtamaa mooy ñaari baat la yoo xam ne buñ dajee ci texte dañuy dañuy teqalikoo ku ci ne am maanaa boo xamante ni moom lay firi waaye su fekkee ne benn bi rek moo ñëw mooy imaan képp moo ñëw te lislaam ñëwut su boobaa maneef na ko firee moroomam waaye nag tollowuñ qaalat il arabu amanna qul lam tuminu mooy kaw-kaw yi nga xam ne ñoo àndoon ak yonte bi alayhi salaam da wax nañ ne ñoom gëm nañ suñ boroom wax ne waxal ne gëmu leen waaye da ngeen di wax ne ñun kat jébbalu nañ kon day mel ne euh, al iman ak lislaam xaw naa am tuuti wuute moo tax mu ne ko wax saani ñaareel bi mooy al maa ngi lay dénk na nga wammatu ci ndigali yàlla borom bi subhanahu wa taala kon ñaareel bi mooy da ko dénk mu doon koo xam ne day taqoo ak lislaam lislaam nag moom doon na loo xam ne am na ay keno yu koy téye yuy tax nit ki ak lislaamam mën a wér comme ni nga xamee ne iman bi ñu doon sànq moom it am na ay keno yu koy téye muy juróom-benni ponk la am moom al bala ñoo ñëw ci lislaam juróom-benni ponk yooyu yonent bi alayhi salaam ci xadiisu jibril tuddoon na ko ba mu ko laajee da ko waxoon ne ko mooy ba ci njëkk na nga gëm yàlla borom bi subhanahu wa taala gëm ne suñ borom ku am la te lépp lu am moom mooy ki ko amal te mooy ki jiitu ki nga xam ne amut ab daytalukaay fu muy yem gëm malaaka yi ne tamit yàlla borom bi subhaanahu bind na ay malaaka gëm téere yi ne yàlla borom bi subhaanahu wa wàccee na ay téere ci yonente yi nga gëm tamit ab dogal moo xam muy lu neex walla muy lu naqari gëm tamit bis penc gëm yonente yi kon juróom benn keno yi mooy keno yi nga xam ne mooy tax ak ngëm mën a doon ngëm gu dëgg te sëriñ bi daanaka buñ dee jàngat ay téeréem danañ gis mu koy faral di détaillé lu bëree bëri ci lu mel ne ci tasawdu sixaar ak tasawdu subbaan ak yeneen téere yu bokkut ak ñoom bu dee lislaam juróomi ponk la ponk ba ci njëkk mooy ñaari baati seede yi mooy wax ashadu an laa ilaha illa allah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu seede na yàlla rek lañ war a jaamu ci dëgg jaamu ko di jur njariñ ñàkk koo jaamu di jur lor seede na yonente bi alayhi mooy yonente bi suñ borom yónni muy ab jaamam di ndawam bu loolu jàllee taxawal julli juróom muy ab ponk bu am solo ci ponk ponki lislaam bu jàllee joxe azaka ak woor weeru koor wii nga xam ne ci lañ nekk ak aj mag kon juróomi keno yii mooy juróomi keno yi téye lislaam su fekkee ne dajee na lislaam mat su dajeewul nag lislaam du mat dëgg-dëgg mu ne ko wax xaalis al ihsaan ñetteel bi li ma lay dénk mooy rafetal rafetal nag baat la boo xam ne moom it yonti bi alayhi salaam firil na ko boppam mooy ngay jaamu yàlla ba mel ne yaa ngi gis sa borom même yàlla boroom subhaanahu wa boo ko gisut nga xam ne tamit moom mi ngi lay gis an taabudallaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak loolu mooy dëgg-dëgg moom la sufyaan kay di tuddee maqaamul musaahada wala muraqaba nga ne nit ki day fuglu boromam mel ne kuy jàkkaarloog boromam di ko fuglu doon lu am solo loo xam ne lu mat a bàyyi xel kon day mel ne ñett yi sëriñ bi njëkk a tudd mooy xaaju diiney lislaam ndax lislaam buñ koy xaaj ci ñetti xaaj yooyu lañ koy xaaj muy al imaanu al islaamu al ihsaanu te sëriñ bi fonk ko lool daanaka man ngaa mën nga ko tuddee sax euh, ay sulaasiyaat yoo xam ne ñett ñett yoo xam ne sëriñ bi da koy tudd lu bëree bari ci biir am mbindam di ko dénkaane lu bëree bari di wax lu bëree bari tamit njariñ yi nga xam ne moo ci nekk téere yi nga xam ne sax da koo taalif ci bëree bëri ci ñetti xaaj yi la koy séddale iman lislaam ak ihsaan lu mel ne tasawdu sigaar ak tasawdu subbaan am ci yoo te ni da koy séddale téere bu nekk mu détaillé ci benn ci yooyu moom tamit la ñuy wax rek euh, al aqida wala tawxid moom moom al iman bu dee al islaam moom lañuy wax al fiqhu bu dee al ihsaan moom lañuy wax at tasawuf nga xam ne kon daanaka duñ soree dëgg-dëgg war raabiu ñeenteel bi mooy atamassuk bil quraan ñeenteel bi sëriñ bi dénk morit bi mu jàpp bu dëgër mooy ci alquranul karim ndax kat alquran mooy téere bi nga xam ne suñu boroom subhaanahu wa taala moo ko wàccee ci yónnente bi alayhi salaatu wasalaam jaare ko ci jibril mu doon téere boo xam ne jàng gi nga koy jàng danga ci jaamoo yàlla di ci amee tiyaaba waaye mu doon téere boo xam ne lottal na mbooleem doomu aadama yépp ñu indi lu mel ne moom xam ne kenn mënta indi lu mel ne alquranul karim comme ni ko suñ borom waxee ci alquranul karim fa'tu bi mislihi in kuntum saadiqin indi leen lu mel ne alquranul karim su fekkee ne li ngeen di wax dëgg la te jàpp na ne ñoo ñu nga xam ne ñoo wax loolu di jéem a wax ne bu yonti bi alayhi salaatu salaam waxee ñu ne waxi njabar lay wax wala waxi nàngam lay wax ak yu ni mel duñ ko mas a andi ba bis penc di taxaw kon mënuñoo indi lu mel ne alquranul karim ak li seeni làmmiñ bi set ak li ñuy dégg-dégg arab li ñuy dégg-dégg balaa balaaxa lépp taxul ñu mën a indi lu mel ne moom moo tax sëriñ bi diglee ñuy ngoy ci alquranul karim alquran sëriñ bi fonkoon ko lool digal mbooleem taalibe yi ñuy saxoo di ko durus di ko jàng doy na sëkk rek ci lim ci wax kullu muridin bi yaluudu fal yudim tilaawatan li xayri dikrin xarrusi bépp murit boo xam ne aju nga ci man na nga saxoo di durus téere bii di alquranul karim nga xam ne mooy ngën ji tudd yàlla borom bi subhanahu wa wax ca masaalikul jinaan adim tilaawatan li dal kitaabi walaw salaasatan min al bi na nga saxoo yow morit bi yow taalibe bi di jàng téere bii di alquranul karim donte ne sax ñetti isib ngay jàng bis bu ne walaw loolu day mel ne donte ne lu gën a néew ci bis bi da nga jàng luy tolloog ñetti ñetti isib nga ne fonkoon na ko lool defoon ko muy ab toolam wax ci lu bëree bëree bari ci ay njariñam wax ci tamit li nga xam ne noonu lañ ci war a jàppee ak niñ ci war a mooyee dëgg-dëgg wal xaamisu at taqwa juróomeel bi li ma lay digal mooy ragal yàlla borom bi subhanahu wa taala te ragal yàlla sëriñ bi bi mu koy firi ci yenn ci ay dénkaaneem day wax ne mooy yàlla borom bi subhanahu wa di la gis ci li muy digle te di la bañ a gis ci li muy tere mooy saabu yàlla digle la suñ borom digle nga nekk ci waaye saa bu teree loola moom du la la ca gis am na sax léeg-léeg da koy firee di wax ne ibaratun an imtisaalil awaamiri wajtinaabin nawaahi aw firin la ci jëfe ay ndigal ak bàyyi ay tere moom sëriñ bi dana ko faral di firee noonu léeg-léeg kon mooy jëfe ndigal yi ak bàyyi tere yi la ca nëbb ak la ca feeñ moo xam muy wax wala muy jëf te taqwa muy ragal yàlla mooy dénkaane bi nga xam ne mbooleem yonente yépp moom lañ doon dénk seeni gaay ñu koy ñu koy takkaayoo ndax képp koo xamante ni def nga ko danga bokk ci ñi ànd ak yàlla borom bi subhaanahu wa taala inna allaha maal muttaqin yàlla borom bi subhaanahu wa taala ànd ak ñi xam ne dañ dañ dañ dañoo ragal dañ koo ragal di wattu ay ndigalam di wattu tamit tere yi di ko bàyyi xel bu baax a baax di jëfe lim digle di bàyyi lim tere mu wax lu bëree bari ci alquranul karim ci njariñ yi nga xam ci nekk yonent bi alayhi salaatu wax ci lu bëree bari digle ci soññee doy na sëkk rek ci li nga xam ne moom la ci suñ borom wax wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxraja képp koo xamante ni da ngaa ragal yàlla suñ borom la defal ab génnukaay loolu mooy lan loo dugg rek ba am ci ay jafe-jafe suñ borom dana la defal ak jàpp jàppandal ba nga génn ci te doo am benn jafe-jafe yonent bi alayhi salaam waxoon na Muaaz ibnu Jabal ne ko ittaqillaha xaytu ma kunta wa atbi'i atal xasanata tam'uha na nga ragal yàlla foo mën a ne barab boo mën a ne ak jamono joo mën a ne na ragal yàlla te saa boo defee aw ñaawteef na nga ca lu baax mu jëf ju baax su ko defee dana ko far ndax kat innal xasanaati yuzhibna sayyi'aat rafet rafet yi nit kiy def day dindi ay bon bonam ak ay ñaawteefam sëriñ bi daal di ci teg ne wa saadisu talabul ilmi maal amali wal adab muy lu ko ñor juróom benneel ci li ma lay dénk yow taalibe bi mooy sàkku xam-xam waaye ndax sàkku xam-xam képp rek la ko sëriñ bi digal déedéet maal amali ànd ak di jëfe xam-xam bi wal adab bi ak i teggit dane kon ñett yi benn mënu ci bàyyi moroomam muy xam-xam ak jëfe xam-xam boole ci ak ay teggit xam-xam ku ne xam ne na moo tax suñu borom subhaanahu wa def daanaka lépp lu mu def ci àdduna lu ne rek xam ak jëf moo tax suñu boroom def ko comme ni ko al imam al ghazali indee ci yenn ci ay téeréem sëriñ bi soññee ci lu bëree bari suñu waram subhaanahu wa taala wax ci lu bëree bëri ci alxuraan wane na kat ña xam ak ña xamul duñu yam hal yastawi alladina laa yaalamuun walladina laa yaalamuun ndax ña xam ak ña xamul danañ yam déedéet su fekkee ne yam nañ rek su boobaa xam-xam amatul njariñ ndax liñ ci jublu dëgg-dëgg mooy xam-xam daa war a defar nit daa war a soppi nit ndax suñu war a waane ci alxuraanul karim innama yaxsa allaha min ibadihi al ulama ñi ragal yàlla dëgg dëgg ci ay jaamam mooy borom xam-xam moom la sëriñ bi junj ca masaalikul jinaan wax ne inna alladi lam yaxsa rabbal alamin laysa bi aalimin walaw afna al funun ki nga xam ne ragalut yàlla borom bi subhanahu wa taala ne sax daa jeexal mbooleem fànn xam-xam yépp kenn du ko jàppee borom xam-xam kon loolu mën naa mën naa bàyyi xel bu dee jëfee tamit euh, mënta ñàkk ndax xam-xam jëfe mooy tax nit ki man cee jariñoo sëriñ bi day melal lu bëree bëri di wax ne ki xam te jëfewut xam-xamam day mel ne mbaam mu sëf ay téere mbaam mu sëf ay téere nag yaakaar naa ab diisaay képp lay am ca téere yi nga xam ne moom la moom la yanu teggi nit doon loo xam ne mënta ñàkk ci nit ki lakk takkaayoo ak ay teggin mooy taaral xam-xam moo tax sëriñ bi waxoon ci biir te sawdu sigaar fa kathratul ilmi bi gayri adabi jaalibatun ilal asa wa taabi xam-xam bu bari te ànd ak ay teggin li muy jural boroom mooy lor ak coona ak tiis ak mettit waxoon na moom sëriñ bi ne jamaalukum ilmun wa saayun wa adab fa laazimuha yunfa ankumul wadab nee na yéen murid yi seenub taar ñett la xam-xam ak jëfe xam-xam ak teggin kon ñett yii mooy ñett yi taaral am murit murit bu mu dajee ci moom mën nañoo jàpp ne mooy morit bi gën a taaru donte ne sax waajtaayu kawam nii taaruwut waaye waajtaayu biiram taaru na kon ñu gën koo bàyyi xel sëriñ bi nag yooyu yëpp bi ñu ko ko denkee ba pare bu ci nekk nag da koy wax su fekkee ne defu ko lan moo cay mën a juddoo ci ay lor ne kon loolu dañ ci gis xarañ gi nga xam ne moom la sëriñ bi xarañ ci ay dénkaaneem yëmul rek ci ne ko dénk naa la imaan lislaam ihsaan mooy ci alquranul karim fan ko xam-xam ak jëfe ko rek daldi ca yem déedéet waaye ba mu paree da caa teg ne ko fa man lam yu'min bi qalbihi fa huwa kaafir képp koo xam ne gëmul ci ab xolam kooku moo di ab yéefar mooy ki weddi yàlla borom bi subhanahu wa taala wa man lam yuslim bi jawaarihi fa huwa faasiq képp koo xamante ni jébbaluwut wala jébbalul boppam yàlla borom bi subhaanahu ci ay cëram kooku mooy faasiq mooy ki génn ak topp wa man lam yuxsin bi kulliyatihi fa huwa musrikun wa muraayin nee na képp koo xamante ni jëfam yépp ak li muy wax lépp rafetalu ci defu ko ngir yàlla tax muy li ñu tuddee al ixlaas kooku benn mu doon koo xamante ni day ngesal wala mu doon ko am te ni day bokkaale yàlla kuy bokkaale yàlla mooy koo xam ne day wital yàlla borom bi subhaanahu wa taala neen mooy jaaxlu sarikin wa niddin lillahi subhaanahu wa loolu mooy ashirk muy bokkaale yàlla wala sax yamale yàlla ak keneen ku dul suñu borom ci loo xam ne àqi suñu borom la loolu day dugg ci biir shirk ba tey euh, sëriñ bi di ko wàttaniku loolu bare bëree bëri boo ngeen jàngee faydul ganil mughni da gis sëriñ bi bi muy wax ba egsi ci dane sirk moom yàlla borom subhanahu wa taala du ko du ko jéggale waaw te loolu mooy li suñu borom wax ci alquranul karim yàlla dina jéggale bàkkaar yépp ba mu des ku koy ku koy bokkaale mooy nit ki mën naa faatuwaale yeneen bàkkaar yu bokkut ak bokkaale yàlla suñ borom mën na ko koo jéggal ci ak coobareem waaye dañoo ne bokkaale yàlla moom nit ki ngir yàlla jéggal ku ko da koy tuub avant muy faatu moo tax sax yenn ci borom xam-xam yi ba ñuy firi yenn xadis yi ñëw di wax ne ku def nangam yàlla jéggal la say bàkkaar ku ci mel ne al imaamu nawawi rahimahullahu taala day wax ne loolu dañ cee jublu saxaayir yi muy bàkkaar yu ndaw yi waaye kabaayir yi moom faaw da nga koy tuub tuub gu sell yàlla doog la koo mën a jéggal mu daldi ci teg ne wa man lam yatamassak bil quraan dal faqad dalla dalalan yajurruhu ila ma yubki abada nee nag képp koo xamante ni ngoyul ci alquranul karim jàpp ci ba dëgër na ko wér ne sànku na sànku gu bér goo xam ne daf koy ñoddi jëmee ko ci lu koy jooyloo ba faawu kon ku ngoyul ci alxuraan leneen loo mën a ngoy lu dul alquranul karim jàpp ci alquran moo ko gën kon yaakaar naa loolu tontu bu am solo mi ngi ci ci yenn ci taalibe yi nga xam ne léeg-léeg dañuy ne ci biir yoon wi di doyadal alquranul karim te sëriñ bi moom lii la jàngale ci alquranul karim lii la wax ci alquranul karim même xasidaa mi sax li muy kawe kawe kawe dafa ne faaqat gayra alqurani wal kawe na lu dul ak xadis kon gis nga foofu wax ju leer naa ñi la fa wax kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax sëriñ bi teg ci daan wa man lam yattaqillaha tabaraka wa taala bimtisaalil awaamiri wajtinaabi nawaahi walam yarhamhu llahu tabaraka wa taala bi tawbati nasux ila mawtihi fa xad xasira xusraanan mubina nee képp ko xamante ni ragalul yàlla borom bi subhaanahu wa taala jaare ko ci jëfe ay ndigalam bàyyi ay tereem te yàlla borom bi subhaanahu wa taala yërëmu ko ci may ko dëppale ko ak tuub tuub sell ba ba may faatu na ko wér ne perte na perte gu bér a bér a bér a bér wa man jahila walam yatlub il ilma ma al amali wal adab ila mawtihi faqad dayya umrahu wal iyaasu billahi taala nee na képp koo xamante ni dafa réer xamul te sakkuwul xam-xam boole ko ak ay teggin ak jëfe la mu xam ba keroog muy faatu na ko wer ne sànk na ak dundam daal di muslu ci yàlla borom bi subhaanahu wa taala te loolu mooy li mu waxoon ca tazawdu sigaar man kaana jaahilan bi fardihi walam yasal fa nafsahu abada wa zalam nee képp koo xam te ni réer na ay farataam te laaju ko moo alak boppam moo sànk boppam te loolu suñu borom moo ko njëkkoon a juñu ci alquranul karim fasalu ahla dhikri in kuntum la taalamun su ngeen xamul laaj leen ñi xam ñaar rek moo fi nekk xam ak ñàkk xam ci xam xam na ki xamul warta rëy ci lépp loo xamante ni lu ko ëmp ci diineem la mu jéem koo gëstu jéem koo xam te ñàkk a jàng moom du lay ndax sëriñ bi ñëpp la ko digal amul kenn ku ci génn damay wax ne bayit bi bayit bu mat bu mat a settanta la kunu ma an fil ilmi raghibina li wajhi man bihi yuqimu diina kunu ma an nekk leen ak man ànd leen ak man fil ilmi raghibina ngeen am xemmemteef ci xam-xam ñépp la wax a nga ca gone nga ca góor a nga ca jigéen a nga ca sëriñ beeg taalibe bi ñépp a nga ca te yaakaar naa ku déglu discours bi nga xam ne sëriñ taxa waxoon na ko ci màggal gi jàll danga gis taxawaay yi nga xam ne moom la ca amee ak wax jooju nga xam ne moom la waxoon wane ne ñépp a war a jàng waaw day mel ne bayitu sëñ Tuubaa boobu rek lay fedd li mu ñëw nag ci yi nga xam ne mooy yi ñu tere wa amma sittatu allati anhaaka anha fal awwalu alxasad mu ne ko juróom-benni mbir yi ma lay tere ba ca njëkk mooy kiñaan kiñaan ku ne xam ne ne bàkkaar bu rëy rëy la suñu waajur bu yàggut sëriñ Moustapha ci masaalikul jinaan andi na ci ay leeral yu am solo ci bi sëriñ bi di leeral lu aju ci iñaan ci baabul rasail yaa ne sëriñ bi bi mu koy firi da koo firee wax ne xubbu zawaalu nicmati zawaali nicmati an muhtadi huwa al musamma indahum bil xasadi nit ku yàlla defal xéewal gindi ko teg ko ci aw yoon ngay ñaane ko xéewal googu ngay mébét bëgg mu dañ ci moom nee na loolu mooy li nga xam ne moom la borom xam ne du tuddee iñaan moo tax mu teg ca laa na an yansaliba xayrun an muslimin aw muslima bul di mébét wala ngay yéene xéewal gi nga xam ne suñ borom da koo defal ab jullit moo xam muy jullit bu góor wala muy jullit bu jigéen muy dañ ci moom yàlla di ko rikk di ko jëlee ci moom ndax benn nga am yéene ci xéewal gi suñ borom defal dañ ci moom dootu nekkat ci ay loxoom wala sax mu ñëw ci yow dañ ci moom ñëw ci yow bokkut ak nag li ñu teye xitta xitta mooy ñeetaange nit ki yàlla defal ko xéewal ngay mébét am lu mel ne moom loolu moom terewuñ ko ayut dara nekku ci waaye yàlla defal ko xéewal ngay yéene xéewal ga dañ ca moom loolu mooy li nga xam ne mooy li ñu tere te yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon na iyaakum wal xasada fa inna alxasada yakulu alxasanaat kama takulu naar alxataba maa ngi leen di wattandikuloo iñaan ndax iñaan day lekk ay rafet rafet comme ni nga xamee na noonu la sawara di lekkee mat kon nit ki mën nay jëf jëf yu baax yu bëree bëree bëri iñaan ñëw yàq lépp comme sa téléphone bi léeg-léeg nga yor ko sa carte mémoire bii virus bu ndaw rek mën na caa dugg yàq la ca nekkoon lépp document boo tijji du dox iñaan noonu la mel noonu lay yàqee jëf ju baax moo tax sëriñ bi tekki ne fa innal xasuuda laa yasud ki xam ne dafa iñaan du doon ab sang mukk du nekk ci kaw du kawe ñi nga xam ne ñoom la maasol mukk ñépp dañ koy sut waaye moom ci suuf rek lay ne ndax daa mel na li yàlla borom bi subhanahu wa taala defal ab jaam moom moom la bëgg loola dañ te yàlla borom bi subhanahu li muy def def na ko bu yàgg pare na ci bu yàgg bokk ko yéene day nekk ci moom bokk ko yéene wutit day nekk ci moom sëriñ boo xoon na ca mawaahibul quddus wa in yasuuka maa qadallahu samad fala tazalu fi garaamin wa yàlla borom subhaanahu wa li mu dogal su fekkee ne day metti sab xol nee na doo dañ mukk di doon koo xamante ni da ngay ànd ak njàqare ba faw wa saani attakabur ñaareel bi li ma lay tere mooy rëy rëylu rëy rëylu mooy ngan ngan lu rek waaw te bi alayhi salaam firee woon ko xeeb doomu aadama yi ak weddi dëgg ku nekk ci yow rëy nga ci yow bu buñ la waxee dëgg nga lànk ba tëdd ci naaj wi doo ko nangoo jël koo gis jàpp ne yow yaa ko gën loolu mooy rey ndax dafa ne képp koo xamante ni luy tolloog fépp suuf ci rey nekk na ci sab xol doo dugg na saxaaba yi ne ko waaw ñun kenn ci ñun day bëgg ay dàllam rafet ay yéreem rafet ndax loolu ci rey la bokk mu ne leen déedéet inna allaha jamilun yuhibbul jamal yàlla dafa taaru te daa bëgg rafet rëy mooy xepp doomu aadama yi ak wet dëgg sëriñ bi daal di ci teg ne fa inna allaha tabaraka wa taala yuazibu almutakabirina binnaarihi in maatu alay nee na yàlla boroom subhanahu wa day mbugal ñi xam ne ñooy rëy rëylu ci àdduna ci sawaraam sa buñ faatoo ci rëy buñ buñ ko faatuwaale tuubuñu ko suñ borom ëllëg yawal xiyaam sawaral leen di mbugale te ku ne xam ne ne iblis lenn alagu ko lu rëy ana xayrun minhu xalaqtani min naar wa xalaqtahu min tiin ba ko suñ borom digalee ne ko si jootalal aadama dana man maa ko gën ndax mankat yaa ngi ma bind ci euh, sawara moom nga bind ko ci ci ban wa thalis ñetteel mooy alxirs mooy xër xër rek la wax waaye bu sëriñ bi ne xe alxirs xër xëy na am na xër yu baax waaye am na xër yu bon xeer ci àdduna wala xeet yu mel noonu mooy li nga xam ne mooy li ñuy tere moo tax ma ne fa inna al xirsa yajuru saaxibahu ila nadamatin azima ndax xeer day ñor di borom jëmee ko ci rëcc goo xam ne rëcc gu mag lay doon war raabiu ñeenteel bi al israaru ala al maasi mooy nuur ci ay bàkkaar nuur ci bàkkaar mooy lan di def ay bàkkaar rek te bàyyi nga xam ne yow doo tuub mukk loolu dafa doon lu ñu tere te sëriñ bi ci biir ay bindam yu bëree bari dañ koy gis mu koy wattanikuloo ay taalibeem fa inna al israara min alaamati ndax nuur ciy bàkkaar màndarga la ci màndargam te xeet yi yàlla na ci yàlla musal bokk na ci kaste xolub doomu aadama baag leer du ci mën a duggati wal xaamisu juróomeel bi al boxlu mooy nay li ma lay tere ba ca juróomeel mooy nay fa inna al boxla yuqarribu ila naar wa yubaidu min al janna ndax naykat day jegeel aji nay ji sawara waaye tamit daf koy soril doomu aadama yi di ko jegeel àjjana loolu sëriñ bi juñu na ko ci nahju xadaayil xaaj mooy li yoon bi alayhi salaatu salaam waxoon nekk nay dafa sori doomu adama yi sori àjjana waaye ki dafa jege doomu aadama yi jege àjjana kon loolu moo leen wutale ñoom ñaar wasaadisu at taswiifu juróom-benneel bi ci li ma lay tere mooy taswiif taswiif mooy néeg néegal néeg néegal mooy lan naa bàyyi ba bi sàngam naa bàyyi ba xeet bi mel noonu mooy alandéme rek lu lu ñëw nga ne naa bàyyi ba bi sàngam nga ne yow la nga war a def doo ko def loolu wóor ndax ku ne la danga dund ba fekkee suba ba naan suba ndax moom bis bi nga nekk rek ci nga nekk bi romb moom romb na bi ñëwagut tamit ñëwagut wóor ba xam ndax daan la fekkam déet moo tax sëriñ bi teg ci ne fa inna taswifa yu fawwitul xayraat nig nigal day xaj nit ki ay yiw ndax jamono ji ngay naan naa bàyyi ba suba wala naa bàyyi ba ci kanam boo ko defoon rek daal di amu yiw waaye nag boo naan naa bàyyi naa bàyyi naa bàyyi ba mu rëcc la yiw woowa tamit dalay lay daal di rëcc mu ne wa man faatatul xayraatu walam yudrikha saqiya saqaawatan la saadata baadaha abadan wal iyaadu billahi taala nee na képp koo xamante ni ay yiw faat na ko romb na ko ba jàll te dabaatulu ko nee na kooku mooy ki texee di texee di goo xam ne ak texe du ñëw ginnaawam ba faw yàlla nañ ci yàlla musal mu daldi ñëw nag ci xaatima bi ginnaaw bi nga xamee ne moom sëriñ bi dénk na ko juróom benn mbir daldi koy tere juróom benn mbir comme ni mu léeg-léeg ci ay dénkaaneem buy tëj dana faral di andi ay tofal yoo xamante ni da koy tofal ci dénkaane bi yu am njariñ léeg-léeg faayida lu koy tuddee muy njariñ léeg-léeg mu tuddee ko tatimma mottali léeg-léeg mu tuddee ko euh, tën bi ab yeete ci dénkaane sëriñ bi ku koy faral di jàngat da ci gis yu mel noonu bii nag da koo tuddee tatimma tatimma mooy ab ab mottali kon dénk na ko juróom-benn mbir tere na ko juróom-benn mbir lum ko dénk lu ne tamit wax na ko bu ko deful lan moo cay juddoo ca lor lim ko tere tamit wax na ko tamit su fekkee ne bàyyiwu ko la nga xam ne moo cay juddoo ci ci lor mu ne wa mimma yuinuka kulli ma amartuka bihi wa tarki ma nahaytuka anhu at tafakkuru wal firaaru kasal wa tarkul iltifaati ila al xalq fi ibadatik wa tilaawa wa akulul xalaali wa ijtinaabu mujalasati dallin al mudillin wal iqaana bi anna kulla ma nawaytahu li axika min al xayri fa innaka tanaaluhu min allahi tabaraka wa taala ba ci yi ci topp mooy maa ngi lay xamal ne kat yii ma la digal ci juróom benn mbir ak yii ma la tere di juróom benn mbir bokk na ci li lay dimbale ba nga man koo def mooy di jëfandikoo sam xel di xalaat xalaat nag dangay xalaat ci loo xam ne moo lay jariñ waaye doo xalaat ci loo xam ne daf lay daf lay lor te yaakaar naa ci tomb yi am na ci bunt bu jëm ci at tafakkur ci biir masaalikul naan ki koy def su ñëwee dana ci gën a yaatal insha allahu taala bokk na ci yooyu tamit mooy di daw li nga xam ne moo di ak tayel tayel lu bon la yonent bi alayhi salaam daan ci musul lu bëree bëree bari masalan nga toog as njàq tiim la njàq si am ndox mu sedd nga bëgg naan waaye tayel tax nga bañ a jug ba pare naan man de bëgg na maa naan te mu yor na njàq si boo jugoon rek tuuti rek danga mën a tànq daldi jëfandiku dellu ca sooy soxla waaye tayel a tax doo mën a jug bokk na ci yooyu tamit mooy di bàyyi di gestu doomu aadama yi ci jaamu yàlla yi ngay def mooy jaamu yàlla gooy def na nga ko def te yàlla tax bul gestu benn doomu aadama waaye tamit di jàng alxuraanul karim ak di lekk lu lew di jëfandikoo lu lew ak lul xalaal doon lu am solo nga nit ki léeg-léeg jaamu yàlla dana ko jafe lool lan moo ko waral mooy li muy jëfandikoo dafa lewul te fàggul lew sëriñ boo xam ne ne wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi xeyri wahami bépp jullit fagul leew farata ci yow ci lu amul benn defe yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ne talabul xalaal jihaadun fagul leew mi ngi mel ne jihaad ci yoonu yàlla borom bi subhanahu wa taala waaye tamit di wattaniku di jekk yaale ak ñaam dañoo sànku tey sànk ñi réer ba pare di réerele na nga ko di jekk yaale ak ñoom bul tooganoo ak ñoom ndax nit ku bis boo toogee ak moom daf lay sànq rek yoon bi nga xam ne moo di siraatul mustaqim du la ca gindi mukk waaye da lay teg ci yoon ba nga xam ne mooy yoon ba suñ borom bañ waaye na nga am yaqin ci ne lépp loo xam ne yaa ngi koy yéene ci aw yiw jëme ko ci sa mbokk da nga am lu mel noonu saa bu fekkee ne yow daal yaa ngi yéene ñépp aw yiw yow it faaw ngay am aw yiw waaye su fekkee doo yéene nit ñi aw yiw pour nga am aw yiw day jafe lool mu daal di ciy teg ne euh, wattawaado ak di toroxlu nga ne tuddoon na kebru ca yam tere woon waaye bi mu ñëwee ci yi lay dimbale nga mën a jëfe yim digle toroxlu muy safaanub rëy mu daal di ko ci tudd wal iktifaaw bi ma razaqaka allahu taala min alxalaal nga doyloo li la yàlla wër sëgale ci li lew te nekk say loxo wa taw ba mata aznabta ngay gaaw a tuub saa boo yëgee ne def nga bàkkaar rek njëkkanteel daw dem ci sa borom ndax gaaw a daa bokk ci juróom yi nga xam ne dañ ko war a gaawe te ñu bëgg ko ndax am na ay mbir yoo nii gaawe ko moom dañ ko bëgg lool ndax dañu wax ne wa kullu ajalatin seytaan yi gépp gaaw ci saytaane la bokk ba mu des juróomi mbir gaawatug gii ca juróom mbir yooyu la bokk waaye iaanatuka axaaka almuxtaaja ala ma yacbudu waaye tamit na ngay dimbale sa mbokk mi nga xam ne dafa aaja woo ki am soxla na koy dimbale ca lam aaja woo ci loo xam ne nag moom da koy jëme ci jaamu yàlla borom bi kon gis nga foofu sëriñ bi wax na lu am solo kii nga xam ne danga koy dimbale mu wér ne lii boo ko joxee da koy dimbali ngir jaamu yàlla moom nanga ko jox waaye bu wéree ne moom boo ko joxee moom da koy dimbali dimbali koo ci mooy yàlla wala yu ni mel kooku moom waroo ko jox ndax yaa yaa ngi mel ni ku koy dimbale ci ak mooy yàlla mu ne nag wuhu la yakunu illa bi tawfiqi llahi taala wallahu almuwafiqu lissawaab wa yantafiu kullu muwafaqin bi hada aljawaab wassalaam mu ne lii lépp nag mënta am lu yàlla borom bi subhanahu wa taala defal la tawfiq defal la ndimbalam defal la ak jàpp jàppandal ba nga mën koo jëfe comme ni nga xam ne noonu laa ko waxee te yàlla borom bi subhanahu mooy kiy dëppale ak la nga xam ne moo di ak njub yàlla borom bi subhanahu mooy jariñ képp koo xamante ni dëppale na ko ak njub ci tontu bii nga xam ne maa ngi ko jëmee ci kenn ci samay murit kon day mel ne dénkaane bi dénkaane la boo xam ne xaw naa yaatu lool sëriñ bu mag bi radiyallahu taala anhu mbir wi muy ci ay fadaayil ay ngëneel yoo xam ne digle nañu koy def ak ay rasaayil ay caay-caay yoo xamante ni tere na ko bépp murit waaye nag daal di koy tëjee loo xam ne bu ko murit bi dee def rek yàlla mën na koo dimbale ci mu mën a jëfe ci ndigal yii mën a bàyyi tamit tere yi ñoo ngi jéggulu lu ci leer yàlla lu ci dëng doomu aadama la ak matadeem wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. jërëjëf Serigne eh, ci dénkaane yu am solo yooyu waaye ci leeral yi eh, ak ñeneen yi yëpp nga xam ne làmboo na ko solo lool mu mel ni eh, dañu leen ay jiw yu bare bare waaye tamit tere ay ñaawteef yu bare biir tamit nga am ci ay taxaw seetlu yoo am ci biir hum nga wone bi ni mu fonke woon xam-xam ak tamit ni ci daan soññee eh, ak jamono ji bu ñëwee ba am ñuy askanoo ci moom di doya xam-xam kon loolu day wane ni ñoom laaluñ ci ñoom laaluñ ci moom waaye tamit Eh, lañ nekk ñoom ak lam daan woote eh, woote na ñot ca loolu nag ak àdduna ñoo ànd bëriwaan na ñoo xam ne jiitu woon nañ ci nit ñu baax am ñu ñëw seen ginnaaw di leen tuddoo di def loo xam ni eh, moom daawu ko wax waaye tamit sax daa mujjoon daan ko tere kon taxaw seetlu boobu am na solo lool nga wax tamit ni murid lii ab taaram te siñ bi wax mooy am xam-xam di ko jëfee atimit am teggin donte sax dafa euh, nuru ku xeewu ci bëtu nit ñi na jàpp ni lam nekk rek mooy la ko sëriñ bi digal te tamit bu ëllëgee mooy lu koy jariñ euh, ndax nit ki am xam-xam moo ko war a gënal euh, mu réer ci am xaalis am na ñuy wax ci borom xam-xam yi naan rabina qismatal jabbaari fii naa lanaa ilmun wa lil jahaali maalu gërëm nañ seddale bi nga xam ne suñu borom seddale na ko jox ñu xam-xam ñi ci des mu daal leen ni jox euh, li nga xam ne mooy ak muy joxaali naka noonu tamit dañuy faral di wax ni ki gën ci nit ñi mooy nit koo xam ne suñ borom da ko defal askanu tedd waaye yëmu ci askanu teddoo dafa liggéeyaat ci xam-xam ak ci jaamu yàlla ba am leneen lu mu yokkal boppam nga xam ne fuñ ñu tuddee maam yu baax yooyu da koy tudd wa xayru naasi du xasabin qadimi aqaama li nafsihi xasaban jadida wa charr al alamina dawu xumuli ida koo xam ni dafa am askan wu yàgg bu xam ci baax waaye nag aqaama li nafsihi xasaban jadida mu fexe ba liggéey bu amaat ci tedd nga loo xam ne moo tax ñëpp di ko tudd waaye ne ki gën a yees ci nit ñi mooy koo xam ni liggéeyut defu dara saa yoo waxee ak moom rek mu tudd la ay maam na sama maam fi defoon di sama baay fi defoon di kooku moo yees ci nit ñi wa charrul alamina zawu xumuuli ida faaxartahum zakaru jududa kon mu nekk wasiya boo xam ne di delloosiwaat nit ñi ci dëgg-dëgg la sëriñ bi euh, bëggoon waaye tamit la taxoon mu fonde li nga xam ne mooy yoon wi ci mooy ñëpp rek mën a jariñu tegu ci yoon maa si jëm ci yàlla ndax jamono dafa baaxoo am yuy fëkk yu ciy feeñ ci misaal jamono jii rek ñuy gis ñuy génn ci télé yi fekk loo xam ne lu sax ci diina la ñu koy wedd am na ci ku ne yaa dina am idaanu yawmil jamaati façon façon wi la dikri la wa darul bayan loolu Eh, ci yonent bi alayhi salaam lay am ak waa këram waaye nekkut loo xam ni lu war ci jullit ni maanaam julli ajuma waru ci jullit ñëpp waaye ci yonent bi alayhi salaam lay am ak waa këram fekk mi ngi doy dal rek li xew ci jamono ji julli yeeg yu demee noonu eh, mu nekk loo xam ni képp koo xam ne ngànnaayoo nga dara dara ci xam-xam wala suñ borom leeral sab dënn soo ko déggee ci saasi donc koy wetti xam ne juwee nag lislaam waaye bu fekkee meloo noonu bu ko déggee mën na laa indil ak jax-jaxel comme ni mu koy indilee ñeneen ñi bi ñuy génn di wax kon nit ki biñ koy préparé eh, rawatina am murit liñ gënoon a bëgg ci moom mooy bu génnee ba taseeg yi fëkke mu bañ koo fëkk waaye sax mu fekk ñoo xam ne fëkk na leen ñu mën koo mu mën nee leen dimbali eh, naka noonu tamit tere yi eh, tamit mu làmboo yoom am solo waaye tamit am ci yoo xam ne jamono jii lu yàq moo ko yàq mën nañ cee tudd benn rek ngir njëkkante waxtu wi mooy demee ni kiñaan taxaw seetlu bi ñu ci def am na solo lool bëriwaane li nit di def ci ay tooxi li ko waral mooy iñaan waaye tamit bëriwaane loo xam ne nit dana ko ñàkk li koy waral mooy iñaan ndax nit ki am na noo koy iñaanee ni nga waroon a xoolee may yella suñ borom may yow sa bopp nga jëm koo eh, développé ngir jëm ci kanam doo tar loolu toujours sa xol mi ngi mi ngi iñaan rek ngir nga Eh, ngir nga eh, bëgg ak xéwalam dañ ci loolu baaxul mais mel ni nga fekk lu mel ne genre cuuraay rek xet ga muy xeeñ neexu la ngeen da ko jéem a lakk boo ko lakkee xet gi ci lay gën a jolli nit ki boo fekkee suñu borom defal ko li nga xam ne mooy xéwal nga koy eh, iñaane day mel ni da nga a tasaar xéwal boobu am na benn waykat bu mag boo xam ni suñ borom bu fekkee dafa bëgg feeñal ay xéwal yoo xam ni dafa nëbbu woon day fekk li eh, kuñ iñaan mu tàggat aw làmmiñam mu jublu ci moom ci ku baax kooku da ci wax eh, kon daal ay eh, tomb yu am am solo la yoo xam ne ñoo ne ci biir di ñaan suñu borom defal ñu dégg ak topp ba mboolem li ci njariñ ñu man koo jëfandikoo hmm. waaye mboolem tamit loo xam ne lu ñu aayale ci biir ñu mën koo bàyyi ba faaw kon incha allahu taala dañuy jox si Moustapha bu defee mu sànn ci ay kàddu eh, daal di tëj jotaay bi incha allah bismillah billahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di dellu siwaat ci duruus yi nga xam ne mooy ak duruus ramadaan yi xam ne ñu ngi koy def diiru ba weer yu ba léegi ñu ngi koy def ñu ngi sant suñu njaboot yi nga xam ne ñoo toogoon di ko def di suñuy doom ak suñuy jarbaat leen ñaanal yàlla ñu doon ay mag taxawaay yi nga xam ne ñoom la seeni waajur doon taxaw ñu taxawee ko ba taxawee lu ëpp lañ doon taxawee wa ma zalika ala allahi bi aziz eh, waxtaan bi nag tuuti rek ay dénkaane la rek yu mel ni lii fii sëriñ Mbàkke doon def dénkaane wasaaya dafa nekk lu am na laqad wasayna alladina utul kitaab yàlla wax na ni dénkaane na ñi leen fi jiitu woon dénkoon naa leen yéen ñi nga xam ne yéen a tolloog jamono it maa ngi leen di dénk wasiya dafa nekk lu am solo ci diine moo tax alxuraan boo ci demee ay wasaaya yu bari ngay gis luqmaan yeneen yonent yi yonent bu nekk la mu dénk njabootam la mu daan waxtaan ak njabootam loolu lépp ay wasaaya la woon kon loolu lu am solo la muy bind bi nga xam ne moom lañ am tey euh, tey nag waxtaan wi tuuti rek ay minit rek la mu jëm ci wa taawanu ala al birri wa taqwa wala taawanu ala al ismi wal muy dimbalante dimbalante yàlla moo ko digle nit ñi yàlla def leen bind yamuñu ñii dañoo am ba doyal ñii ñàkk lool amuñu dara ñii wér ñii wéradi ñii am kàttan ñii ñàkk kàttan noonu la yàlla bindee àdduna si yëpp foo dem rekk noonu la ko yàlla bindee kon moo waral mu ne nañ dimbalante ki am kàttan nay dimbale kim ëpp kàttan ki am mën-mën ak alal nay dimbale ki nga xam ne moom la ëpple man-man ak alal ku ne rek la nga tane sa moroom war nga ko dimbale ca lool wa taawanu ala al birri wa loolu suñu borom moo ko digle farata la e, dafay am nag ay jamono yoo xam ne day gën a nekk farata ci nit ñi muy jamonoy mbas yu mel nii jamonoy xiif jamonoy feebar jamono yu mel nii yëpp eh, ndigal loolu day nekk loo xam ni maanaam day gën a war ci nit ñi ñu bàyyi ko xel te rawatina nag ci suñu jamono ji ak tolluwaay yii nu toll fii mu nekk nii xam ngeen ne sëriñ bi muy Cheikh mu Mountakha ci bi mujjee wax eh, digal na nit ñi bu baax ñu dimbale ñi nga xam ne ay néew ji doole lañ wax na ci lu bari te loolu it fii ne dañ cee toll muy dëkk bi nu nekk di Touba ak yeneen dëkk yu lu Touba ñun ñi nga xam ne dañuy daje nit ñi nit ñi di nu téléphoné wax ak ñun xam nañ ni nit ñi am na fu ñu toll fii mu ne nii ci sonn ci coono nit ñi sonn nañ lool coono yu méttee méttee méttee méttee ci jamono yi ñu toll. am na ñoo xam ne la ñu doon liggéeyee liggéey tuñ ko am na loo ñoo xam ne fañ doon liggéeyee jëlee nañ leen fa dàq nañ leen am na ñoo xam ne tey la doon sonn di ci am dara loole bunt boobu tëju na te amatuñ fuñ jëm te sax ñi nga xam ne yàlla dafa leen a mayoon sax ñu mën a jóg di yalwaan sax bunt buñ yalwaanee amatuñ ko ndax ñu bari daanañ mën a jóg guddi di yalwaan pour ñu am lu ñu lekk waaye lii nga xam ne mooy couvre-feu bi nga xam ne mënut a ñàkk tax na ba nit ñi génn guddi am na ñu bari mënatuñ ko waaw am na ñoo xam ne xii ba bët set bari lool te ñooñu mat nañoo bàyyi xel lekk ba suur ci sa kër ne man sama yoon ci keneen keneen ku mënti xiif awuma ci soxla loolu boo dee julli ak boo dee woor war nga xam ne sa njullit des na ab julli fàttaliku ak di bàyyi xel ñamu tane di leen bàyyi xel ci lu man mu di leen ko taxaw di leen ko dimbale kon ñi nga xam ne ay borom man-man lañu fi toll nii war nañoo jóg ci taxaw al fuqara wal masakin fuqara yi ku koo xam ne sax danga daan génne asaka xëy na daawoo ko génne ci période bi génne ko mën koo jox fuqara yi ak masakin yi jot na mën nga koo génne ndax zuruf yi ak circonstances yi nga xam ne moom la nit ñiy dund metti na lool ba ëpp te toog di ko seetaan jàpp ne rek man bu ma jullee bu ma jàngee alxuraan bu ma defee nangam doy na déedéet yàlla njabootu sunu borom gi nga xam ne mooy doomu aadama yi doomu aadama yi nekk ci kaw suuf yëpp njabootu yàlla lañ waaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag nee na Eh, xayrukum xayr gën ci yéen mooy ki gën ci yéen ci njabootu yàlla gi waaw wa yutcimuuna taama ala xubbihi miskinan wa yatiman wa asira yàlla gis ngeen ñett yim tànn fu ñu toll dañuy fab ñam togg ko mbaa ñu fab ñam la moo xam dugub la moo xam lépp di ko jox ñii ala xubbi lañu la ñu bëgg nga nga seet loo xam ne soxlawoo ko waaw loo xam ne yow dootoo ko lekk boo ko bàyyiwoon sa kër yi da nga koy tuuri waaye doo ko jox kenn loolu ngay jëm di ko jox miskin loolu dañ koy tere moo tax mu ne ala hubbi loo xam ne bëgg nga ko yow ci sa bopp da ko jëfandikoo loolee booy joxe lu baax ngay joxe waaye bul joxe loo xam ne soxla woo ko yàlla fonk na ko fu mu toll mi ngi koy tudd ci alxuraan ba boole ko ci ñi war a jox asal yonent bi alayhi salaatu wasalaam daana wax ne man dama bëgg miskin bay ñaan ci yàlla ne maa ngi ñaan yàlla allahumma ahyini miskinan ah, wa tumituni miskinan waxsurni yowma alqiyamati maa almasakin yonent bi alayhi salaatu wasalaam daana ko ñaan yàlla yàlla ne yàlla yàlla nga ma def may bi may dund ma nekk miskin bu may faatu it ma nekk miskin bu ëllëgee yowmal xiyaama miskin yi bu ñu leen di dugal àjjana nga boole ma ak ñoom ndax miskin yi ñooy njëkk a dugg àjjana yomal xiyaam ni ñu dellu ni ñu nekkee ci gannaaw fii ci àdduna bu ëllëgee yomal xiyaam ni la leen di jiitalee ñooy ñooy première classe yi njëkk a dugg àjjana yomal xiyaam am na ko ñu daan wax Abdurahman ibn Awf da daan wax yonent bi man de yàlla may na ma alal waaye li ma may alal lépp tax na ba waxtu wu ne am naa lu may xalaat mooy wax gi nga wax ne ëllëg yow yaag miskin yi yéen ànd dugg àjjana uur bu njëkk ba njëkk a dugg àjjana yaag miskin yi yéen koy ànd te man damaa bëgg a bokk ci ñooña te man yàlla may na ma fii alal bokkuma ci miskin yi mu ne ko kon deel def li yàlla wax ci miskin maanaam dee leen bàyyi xel di leen dimbale di leen dimbale ci sa alal bu boobaa yow ci sa bopp mën nga caa bokk kon gis ngeen ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam fonke miskin ba di ñaan yàlla bu bokk ci wa yatiiman yatiim mooy ku amul bàyyi mooy nit koo xam ne maanaam amagoo dix-huit ans fukki at ak juróom-ñett te sa bàyyi ga génn àdduna amoo kenn ku la jàppale amoo kenn ku la dimbale kooku mooy yatiim kooku it dafa mat a jàppale ndax mooy koo xam ne ki ko waroon di ko dundal ki ko waroon di ko yor amatu ko nit bu waajuram génnee àdduna ah, coono daal na koy tàmbalee dugg métti tàmbali na ko dugg ndax ku mel ni moom ci waajuram dootu ko am ku koy taxawoo ni ko waajuram di taxawoo mënu ko am nit mën na laa dimbale ngir yàlla rek donte as sa jege ñaare la dimbale man waaye nag am na foo xam ne du fa egg ak yow kon euh, asir boobu boroom xam-xam yi dañ ciy wuti ñu ne mooy prisonnier boo xam ne dañ koo jàpp ci jihaad ñenn ñi déedéet mooy Euh, ab yéefar maanaam yéefar bi sax dañoo bëgg ngay fab sa alal di ko jox am na borom xam-xam yu féree assir boobu yéefal ah ñu ne yéefar ndax boo ko joxee sa alal da nga ci am yool ñu ne waaw fii kulli rabbin ajrun maanaam lépp luy yëngu te am res boo ko donte ab muus la donte ab kalbu la donte lu mën a doon ab xayawaan la loo boo ko defalee dara suñu borom fay la gis ngeen ndaw si amee woon am muusam yeew joxu ko muy lekk jox ko mu naan bàyyiwu ko mu dem wuti gis ngeen la ko suñu borom def daf ko dugal sawara ngir muus moom ci la dugal sawara joxu ko mu lekk joxu ko mu naan mu yeew ko ci sabab suusu képp ci la dugal sawara gis ngeen it koo xam ne benn kalbu la fekk ci teen mu mar lool mun sa amut lu mu naan mu wutal ko ndox jox ko mu naan ba mandi mu dem musul defal yàlla dara ba mu faatoo ca loolee képp la yàlla dëgg ba yóbbu ko ajana kon a ah, yéefar bi kéefar gi nekk ci moom moo baaxut waaye jëmmi doomu aadama gi di nga xam ne nit la loolu boo ko teralee it yàlla fay la loolu boroom xam-xam yu bari ànd nañ ci bu baax a baax kon ñooñu nga xam ne wayatiman wa asira innama nut'imukum li wajhi llah laa nuridu minkum jazaan wala shukura lii ñu leen di defal di leen jox ngeen di lekk di leen jox ngeen di naan ngir jëm yàlla képp a tax soxlawuñ ci ngeen fay soxlawuñ bu ko yàlla tax mu ko digle ak bëgg yoolu ko suñu borom ak tuyaabam ëllëg laa nuridu minkum jazaan wala shukura bëgguñu ko ñu ci fay bëgguñu ko ci si gërëm baa ko ñu ci sant soxna Aysa radiallahu anha wax nañ ne daana yónnee ay sarax ci ay nit bu yónnee sarax bi ba sarax bi dem mu laaj ki mu ko yónni woon ne ko waaw bu nga demee ba nga ko joxee lu mu wax mu ne ah ñaanal la la de bu ko defee Aysa daal di jóg moom itam ñaanal kooku ñu ne ko waaw loo ci jublu mu ne dama bëgg mu nekk xaalis xaalisatan li wajhillah ndax day mel ni ñaan googu sax lu baax la waaye man jubluwuma ci sax mu ñaanal dama koo def ngir jëmmi yàlla képp bëgguma ku ci ñaanal bëgguma ku ma ci gërëm bëgguma ku ma ci sant xoolal rek foofu nag egguwaay la bu sori du ñëpp fa egg ayut nga jox nit sa alal mu ñaanal la ngir yàlla dara nekku ci waaye nag ñoom fañ egg ak seen niveau fa ñuy euh, xalaate yow egg ko mën nga bañ a mën a egg foofu waaye Aysa eggoon na foofu ci ñaanal gi nga koy ñaanal daf ko koy fay ba nga xam ne sarax bi day nekk xaalis sa témba ci laa nga xam ne dara nekku ci lu may yàlla rek tax mu yokk kon ñu ngi fàttali bokk yi ci ni ko sëriñ bi doon fàttalee ne nit ñi day am nañu sonn lool coono bu méttee méttee am na ñoo xam ne du ñu añ wala bu añee du ñu reer waaw loolu day ba fii ci dëkk bi ci Tuubaa gii ak affaire bari te day am na ñoo xam ne ndeysaan mënuñoo yor yorwaan mënuñoo tàllal loxo am na ñoo xam ne seen yaram ak seenu mage mayu leen ñu jóg di ko si te fañ toog lañ toog rek di yàlla waaw am na ñoo xam ne ay mbañ rus lañu ñu gisee defe ne am nañ te fekk amuñu tax ya eh, tax si eh, da ngay jort ne agniyaa min ataafufi ni ko alxuraan di waxe mbañum rus moo xam ne boo ko gisee day sol yére yu set mel ni nit ñu ñépp mel waaye yorul dërëm ci bosam yorul dërëm bu mu yóbbu ci njabootam te ruus naa tàllal loxoom di laaj kenn waaw taarifum bi si meexam yow mi am xel rek yaay mën a xool xam ne kii de am na jafe-jafe laa yasaluuna annaasa ilhaafa duñ tàllal seen loxo di lakkal nit ñi walla ñu leen di lëjal di leen laaj majuruus yi dëgg dëgg dëgg duñ laaj ñooñu nag yaay xam ne ñii am nañu fu ñu toll rek nga dimbale leen ngir jëm yàlla ak wu ci caabu yàlla dañ xam ne jot na lu waay man ci ndimbal fi mu toll nii war nga koo dimbale nit ñi ndax fi mu yi metti na coono yi bari na sëriñ bi nag moom li ko ci war mi ngi koy def gis ngeen fii ci biir Touba bëggul sax ku ko wax waaye nag ñun dañuy wax ngir bëgg ñu roy ci moom ndax jëf ju baax bu ñu koy def warees na ko wone ngir ña ko man mën a roy ci jëf ju baax ji kon foofu itam dañ fay toll mooy ñi man ñëpp war nañoo roy sëñ bi kenn ku ne fa nga mënee tey jii quartier ba nga ne dëkk ba nga ne nit ñi nga nekkal nga roy sëñ bi ci wat googu dimbale nit ñi ngir jëm yàlla loolu de ñi ngi koy soññee nit ñi te bëgg itam ñi nga xam ne ay borom ñu mën lañu seen poos seen loxo jot na sa seen gannaaw ñu bàyyi seen xel te xam ne li ñuy def lépp suñu borom ëllëg dana leen ko fay fay leen ko ci àdduna fii dana leen ko fay fecc àlaxira waaw te dana def jàmmit ci réew mi dana tax nit ñi juboo dana tax nit ñi bëggante dana tax nit ñi kenn ku ne la nga am mu yéene la ko ndax nit boo ko dimbalee ci li nga am la nga am day ñaan yàlla mu yokk waaye du ñaan mu wàññi waaye bu fekkee li nga am doo ci dimbale kenn ah nit ñi day loola ca dal day mel dañ la ko yéene buñ la ko waxutit kon nag nañu yokk ndimbalante bi am na ñu koy def ñu bari yal na leen ko yàlla gën a mënal ñu gën koo def ñi ko mënut ñi ko manoon te defaguñ ko it ñu ngi ñaan yàlla ak di leen ñaan ak di leen woo ci woote sëriñ boobu yi dañ koy teg ñu jàppale leen dimbale leen eh, lii rek in nuridu illa al islaaha ma stataat wa ma tawfiq illa billah lii liñ ci bëgg képp weesuwut ak defar weesuwut bëgg rek doomu aadama yi yëpp jàppalante dimbalante man gis naa ci ay réew yoo xam ne nañuy def lu am solo la ay borom alal dañuy euh, quartier bi ñu dëkk wala dëkk bi ñu dëkk dañuy recenser dañuy recenser ay fuqaraaw yu bari yoo xam ne xam nañ leen ne ñii yoral naa leen seen dund fii ak weer ci jafe-jafe yu mel nii bu ñu ñëwee ñu defal leen ay ticket wutal leen fu ñu koy jëlee bu ñu demee foofa jëlee ko fa nga xam ne fii ba weer di dee semaine bu ne ñu jox leen seen dépasse semaine loolu am na réew yoo xam ne ñi ngi koy def am na ñoo xam ne dañuy wax ne képp koo xam ne am nga ordonnance bu jàmp boo xam ne mënoo ko jënd ñoom danañ la ko jëndal boo indee ordonnance bi ñu jëndal la ko jox la xaalis bi mbaa ñu yebal la ci benn pharmacie nga dem jënd ko loolu ku mel ni Cheikh Abdoul Qadir Mbacké nii radiallahu anhu jikkoom la woon daana ko def ba fuqaraaw yéeg miskin yéeg ñi amal wéradi ñëpp ku ci masaan am ak wéradi dangay dem jox ko sa ordonnance boo ko joxee fi bu koy gis rek daal di laaj lu mu toll ñu daal di koy jox kooku daal dem jënd ko Sëriñ Abdou Khadre loolu bokkoon na ci ab liggéeyam boo xamante ne ñii nekkoon Touba ci jamono yooyu yëpp xamoon nañ ko ak yeneen yëm daan def waaye lu lu mu fonkoon la maanaam nit ku nekk ci tawat mu jàppale ko dimbale ko loolu moom bokkoon na ci loolu nag yal na yàlla bari ñu ko roy ca loola loolu lu am solo la ndax nit ku dem ba tawat dem ñu baree ngi nii di dem ci garab yi nga xam ne daf leen di gaañ te bëgguñu caa dem dañoo amul moyen yuñ mën a demee ci hôpital bi ndax lañ leen di bindal ci ay garab dañ duñ am luñ ko jëndee bu ko defee bu ñu gisee maa man boo xam ne ragalul yàlla lu mu leen wax tam yomb ñu dem def ko lu leen ci dal baax na lii kat moo indi problème bii te nit ñi ñi ngi koy gis kon loolu war nañ ci bàyyi xel te dimbale leen kon yàlla na yàlla defal digg ak topp wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaw jërë ngeen jëf euh, mbokk yi di sant bu baax sëñ Moustapha ci intervention bu am solo boobu yéen ñu doon bàyyi xel seen waxtaan fii ci Maktabatu Cheikhul Khadim di télé bi di Touba Vision en direct dañuy santaare bu baax sëñ Mbacke Diop bi doon amal waxtaan wi ci wasaaya sëriñ bi dénkaar yu am solo dañuy profité di yàlla laaj rek mbokk mi day laaj ban xeeti tukki mooy mooy dagan ci ci koor. ban xeeti tukki. tukki amul koor ak lu dul koor. kuti tukki li koy taxaw a def nit mooy am sa itte am foo yaakaar ne boo fa demee itte ja faju wala nga am sa itte ci sa mbokk dem di ko seeti wala nga am itte ci barab dem di fa dem loolu mooy tukki loolu as safar loolu amul koor amul dul koor tukki bi ñuy tere mooy tukki boo xam ne da jóg di mooy yàlla as safar fil maasiya koo xam ne da tukki da jóg di tukki ji ngir mooy yàlla tukki boobu la ñuy tere nga di def ci koor ak ci lul koor koor ak lul koor ñooyam kese bu fekkee da ngaa tukki nag ci koor eh, dañ laa wax ne la may nañ la nga bañ woor dana ban xeet tukki mooy dog koor amul tukki buy dog koor ak bu dul dog koor tukki bu mu mën a doon te du tukki mooy yàlla permettre nañ la nga bañ a woor faman ko minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayaamin uxra yàlla def na képp koo xam ne dangaa feebar mbaa dangaa tukki may nañ la nga ñàkk woor waaye bu weer ga bu woor ba bu weer wa weesoo nga fay bu fekkee tukki bi du ma yàlla tukki bu mu mën a doon sañ na ko boobu mbokk mi day laaj kuy julli daal di wàccu kuy julli bu fekkee wàccu na bu fekkee ndax julli lekk dañ koy tere bu fekkee wàcc ma ma tegg taqale na kooku sagoo te ñaari nag wàcc nag ku ko def teqali kooku sagoo walla walla am lu jàllaat ci sa biir yooyu kon moom dagg julli gi ba wàcc ma ba dal mooy la xam ne moo moo ci gën. jërëjëf sëñ Moustapha ci tontu boobu. kii day laaj lan mooy njariñu koor. da ko boole ndax géex tamit day yàq koor. mu ne. lan mooy njariñu koor. waaw. ba pare ne ndax géex day yàq koor. kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun yàlla nee na maa farataal ci jullit yi koor na ma ko farataale woon ca ñeneen jiitu woon njëriñ li jëkk ci koor mooy ragal yàlla maanaam ragal yàlla gi muy def ci yow ba nga xam ne danga nga fàttali ko sunu borom subhaanahu wa mooy li nga xam ne mooy njëriñ li ci jëkk njëriñ yeneen yi ci topp nag waxoon naa ko fi bari na lool waaw njëriñ yi nga xam ne koor dana la ko defal muy bis bu set sunu borom baal la say bakkaar saa boo dogee ba noppi rek sunu borom effacé la sa bakkaar yi nga amoon ci bëccëg boobu yépp ak la ko weesu lépp bokk na ci njëriñi koor yëg gi ngay yëg ne yow bi nga xiifee xama nga ne xiif lu metti la ba bu ëllëgee si biir sa mbokk moo xam ne dafa toll ci xiif da nga xam ne lam toll lu metti la nga jàppale ko dimbale ko ak yeneen njëriñ ak yeneen njëriñ yu bare bari euh, yu yu nga xam ne nekk na ci koor kon koor dafa nekk loo xam ne ay njëriñ yu dul jeex waxoon nañ ko fi démb rek waaye lu bari la loo xam ne mën nañ fay nekk di ci waxtaan ba ngoon ba suba. jërëjëf sëñ Moustapha ci tontu boobu kii day laaj lan mooy yërmande yàlla ci jullit ñi. ah yërmande yàlla de yaatu na lool. inna rahmatallahi waasia yàlla ne sama yërmande dafa yaatu li ngeen nekkee lépp sama yërmande la wér gi yaram gi nu am yërmande yàlla kàttan li nu am bay jaamu yàlla yërmande yàlla man-man bi ñu am ba mën a yor sunu njaboot yërmande yàlla dund gi nuy dund sax yërmande yàlla loolu lépp yërmande yàlla dafay yaatu jullit bu fekkente ne amul yërmande yàlla du mën a def dara li ñuy def lépp yërmande yàlla def ciy dugg bu doon lool loolu duñ ko man kon ma ne yàlla mooy suñu dund gépp rek far jërëjëf sëñ Moustapha ci tontu boobu kii day laaj maanaam jamono yi nga xam ne dañoo daan woor ci yi at dañ daan gis dañ daan taxaw julli ak bernde ci mbooloo hmm. léegi muy laaj yan xeeti jëf moo ko mën a wóotu hmm. day laaj mu ne comme weeru koor yi jàll dañ naan julli di taxaw ci di ko mën a masal ci mbooloo wala di dajale ni la jox ay bernde mu gis ne fii réew mi toll jamono laaju ko mu ne yan xeeti jëf moo ko mën a wut. laaj bi comme jamono fi mu toll bu njëkk dañ naan gis ne naafira ci jumaa yi ak di wër nit ñi di leen jox ay ay ay xéewlu ñu koy xéewloo mu gis ne jamono laajatul loolu léegi muy laaj yan xeeti jëf. lu baax moo mën a wutu loolu mu def lu daan def ah, ba tey mënees na ko nag lenn lu tee nit man ko itam amut yëf yi eggut foofu nag moom laa doon wax léegi naafile yi dañ koo mënatul a def ci biir jàkk yi waaye ñi mënees na koo def ci biir kër yi nit ñaa ngi koy def ci biir kër yi te def ko ci jàkka ja bu ma nee am moo gën bu yàlla dogalee mëneesu ko itam ku ko def ci kër yi sax moo gën naafile ci sa kër dara la gënu ko nit yàlla yi dañuy julli farata dañ ne leen bu leen bàyyi seen kër yi mu mel ni ay xubur dee leen jox farata yi ci jàkk yi waaye dee leen joox naafila yi ci kër yi ndax kër gi bu fekkee doo fi jàng alxuraan doo fi naafila kër gi day mel ni ab xabru rek kon naafila ci kër sax moo gën léeg-léeg naafila ci jàkk kon loolu ba gisu tey jii lu mën a nekk la tey nit ñaa ngi koy def mu ngi continuer di def ba def yu baax yi nga xam ne itam moom nga doon def ah di ko jox nit ñi loolu kat xëy na ci guddi gi nga ko mënul waaye def ko ci bëccëg bi waaw bëccëg bi yaatu na waaw boo amee ci koñ bi nga nekk wala dëkk bi nga nekk ñoo war a mën a dimbale ah wax dëgg yàlla bëccëg bi yaatu na yaatu boo xam ne la nga leen war a mën a dimbalee ba tey jii mi ngi fi buñ layee nag feebar bi rek ba tax nit ki ne dootuma naafi la layee feebar bi it ba ñu nga waroon a dimbale luñ la wax nga ne ah yëf yi de dafa xaw a doy war déedéet bu ñu ko bu ñu ko def dëgg sax rek de koo xamante ne maanaam gars yi dañ ko bëgg a def lay waaye du lay léegi lañu war a gën a yokk sax ndimbali yooyu léegi lañ war a gën a yokk naafila yi ngir yàlla jégal nu waaw. jërëjëf sëñ Moustapha ci tontu boobu dañ ñëw ci laaj mujj rek kii day laaj kuy sàkku xam-xam wan melokaan la war a yore fa koy sàkkoo. ah xam-xam day sëñ Tuubaa bind na ci ab te ab yóbbal zaadu zawi taallumi yóbbalëb ñi nga xam ne dañuy jàng xam-xam yóbbalëb ñiy jàng xam-xam xam-xam nag la ca jiitu boo koy wut da koy bëgg da nga koy bëgg ci sa xol ñaareel ba it da koy wut ngir yàlla képp doo jàng xam-xam bi laa ma tuullima miraan wariya awil mubaahaati bi fadriya bul jàng xam-xam mukk ngir bëgg mën a werante bëgg koo weranteel rek man ko wariya ak di jàng ngir bëgg ñu ne ah moom de boroom xam-xam la ku mën a jàng la awil mu baaxaati wala di ko damoonte ci say borom jàng naa xam naa nangam xam naa nangam am naa diplôme sàngam yow amoo ko mu ne sëñ Tuubaa nee na yooyu yëpp amul njëriñ kon bii fadriya bul jàng mooy jàng na yàlla tax ngir xam sa borom subhaanahu wa xam yàlla képp na la tax ngay jàng gannaaw boo ko xamee ba noppi nga di ko jëfee nga di ko jëfe boo ko xamee di ko jëfee ba noppi nga di ko jàngale ngir yàlla jottali ko ña ko xamut nga fexe bañ xam ko di ko jëfee ñoom itam te bañ ko yooyu mu wax nga xam ne mooy jàng ngir bëgg boo liggéey si biir ñu ne ah moom borom xam-xam di jàng ngir won nit ñi ne am naa xam-xam di jàng ngir won nit ñi ne maa leen sut ne yooyu yëpp amul benn njëriñ boo noppee it nga di ko jëfe ndax nee na euh, kiy jàng xam-xam te du ko jëfee kooku bu jàngoon téere yëpp xam fànn yëpp mën koo tari te du jëfee xam-xam boobu mook mbaam mu yenu ay téere ñooyam mook mbaam kal ximaari yaxmilu asfar mbaam bu yenu téere lu mu koy jariñ xanaa diis boroom xam-xam bi nga xam ne itam loolu képp taxoon muy jàng ëllëg yowmal xiyaam yàlla du ko ci fay àdduna si itam du ci am dara du ko xanaa lam cay am ak as néew mooy tiital ba mu cay am ak nit ña waaye bu demee ci yàlla dara la ko du jëriñ bu duggee ci bàmmeelam dara du ko jëriñ kon xam-xam moom mooy bi nga jàng te yàlla tax laa bi kasrati riwaaya bal innahu nuurun maa diraaya xam-xam du rek bari wax di coow rek di wax leer la gu yàlla def ci nit ak xam-xamu baatin bu yàlla def ci nit mu sellal sa xol sellal sam xel nga baax am ay jikko yu rafet di jaamu yàlla di teewlu yàlla foo toll di ko jëriñee nit ñi eh, foo toll di jëriñ nit ñi ci sa xam-xam loolu moom la xam-xam di jëriñ waaye kat loolu yi kon moom la ñuy yóbbal ñiy jàng xam-xam bu ngeen demee ci Masaalikul Jinaan ñi ngi koy firi bu soobee yàlla da ngeen gis ci bu ngeen demee ci fi muy waxee ci wàllu xam-xam dana ci wax loolu yëpp dana ko ci wax incha allahu taala. jërëjëf sëñ Moustapha ci tontu yu am solo yooyu ngay indiloon tey ji fukki fan ak juróom ci shahru Ramadan dañuy profité waar di santaale ñu ko xam ne ñoo ko doon jàllale en direct di ci njëkkee Touba Vision. ki nga xam ne moo nekk Ziggy Maktab bi ak académie mi naan ak Bichir TV ñu leen di sant ak alxadimiya di leen sant bu baax ci yaatal gi di leen ñaanal tawfiq ak taysir dañ leen di fàttali programme suba bi rek muy jotaayu majaalis ñu koy ànd ak sëñ Masamba Bousso ak sëñ Abdoulaat Ñang incha allah rabbi taala kon ba suba ak jàmm incha allah jërë jëf la tadaa lana بمرامنا وحفظنا اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجسام وسيء الأسلام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجسام وسيء الأسلام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجسام وسيء الأسلام آمين